li nga xamante ne tey nekk na réalité au niveau du département de Mbacké donc monsieur le maire ñu ngi lay gërëm bu baax di la sant ci sa taxawaay di remercier à travers monsieur le maire maire yi nekk Mbacké yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di remercier maire u département bi yëpp parce que gis nañ seen taxawaay gis nañ seen présence mais aussi ñu ngi leen di gërëm ci li nga xamante ne mooy convention yi nga xamante ne signé nañu ko tey di tax muy am relation entre Sénégal service ak seeni ay mairie parce que nag dafa am loo xamante ne muy kayitu juddu di kayitu mariage wala kayitu état civil de manière général dafa nekk loo xamante ne askan wi dañ koy soxla saa su ne ak fépp foo xamante ne nekk nañu fa tey nag doomu Mbàkke mu nekk Mbàkke wala mu nekk fépp ci biir réew mi wala mu nekk bitim réew désormais ak convention yi ñu signé dina leen mën a permettre ñu mën am accès seen acte d'état civil sans pour autant ñu war a mën a déplacer wu ci communes yi nga xamante ne foofu la ñu sokkee ko loolu nag technologie moom moo koy permettre te espace Sénégal service bi tey am na outil yëpp pour mën a vraiment jël en charge loolu nga xamante ne mooy li président di woowee moom mooy ñu rapproché population bi ak administration bi grâce au numérique loolu moo waral ñu tabax fii ci Mbacké espace Sénégal service boo xamante ne population département de Mbacké ñoom ñoo ko moom donc fii nag lu bari mun nañu ko fi def lépp loo xamante ne dafa nekk utum kayit ci biir administration bi tey boo ñëwee mun nga ko fi am espace Sénégal service bi administration bi yëpp la fi nekkal amul benn structure boo xamante ne tey du liggéey ak moom donc képp koo xamante ne nekk nga administration ci état Sénégal boo ñëwee liggéey ak donc espace Sénégal service bi ce service dinañu ko mën a délivrer ci espace bi jàppale population bi pour que procédure yooyu ñu mun leen a yombalal mais surtout nag ñu mun leen a indi ci département yi parce que seetlu nañu woon ne que population bi dañ doon def ay déplacement yu bari pour mën a jot ci yenn kayit yi léegi loolu président Macky Sall dindi na ko nit ñi mën nañu ñëw léegi seen département pour mën a bénéficier wu ci service yi nga xamante ne état daf koy joxe yëpp. Euh, espace bi nag abrité na également lu ñuy woowe pôle emploi bi nga xamante ne président Macky Sall moom moo ko teg pour répondre à la jeunesse sénégalaise. ci li nga xamante ne mooy problématique gu xëy loolu nag moo tax mu teg la pôle emploi jagleel daanaka quatre cent cinquante milliards yoo xamante ne jeunesse bi ak famille ñoom ñoo ko moom. donc képp koo xamante ne bëgg nga bénéficier wu ci programme yooyu da ngay ñëw ci espace Sénégal service bu Mbacké nga mën a bindu pour mën a bénéficier wu ci programme yooyu nga xam ne président jagleel ndaw ñi ak ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi. di ñaan autorité yi nekk Mbacké muy préfet bi muy maire wu Mbacké mais également l'ensemble des maires du département ñu jàppale ñu ci li nga xamante ne mooy communication bi pour population yi mën a ñëw ci espace bi mën a bénéficier wu ci programme gouvernement yooyu yëpp mais également ñu ngi leen di ñaan ñu jàppale ñu également ci maintenance wu donc espace bi donc monsieur le maire loolu aussi ñu ngi la koy ngi la ca ñu ngi la koy yóbbante ci say service pour ko loolu également nga mun ñu ci jàppale parce que bëgg nañ vraiment espace bi ñu maintenir cadre bi pour mën di recevoir population bi dans de de d'excellentes conditions. maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew yëpp nuyoo bi ma si jiital monsieur le directeur de l'ADE di ko di ko dalal si département bi euh, di nuyu maire yi fi teew yëpp euh, di wax ni dañ koy. Euh, santa di ko wax jërëjëf bi mu comprendre la politique de son excellence le président Macky Sall mu jaarale ko ci moom ca boobaak lay gis nañu taxawaayam si euh, département yi di wax ni collectivité territoriale yi li leen directeur wax ma dellu di leen ko wax ni lii dañu bëgg ngeen def ci ngeen jàpp ci ngeen jàpp ci pour son entretien ngeen jàpp si pour mieux sensibiliser parce que fii lañ ko def inauguré au niveau du département. bi ñuy def suñu CDD pour lancer le pôle emploi proposé woon nañu euh, de bureaux mobiles parce que ñëpp nañu agsi fii mais de temps en temps da ciy baax weer wu nekk ñu dem au niveau des arrondissements pour que jeunes yi nekk foofu aussi xam ni lii ñoom ñoo ko moom. yéen ndaw ñi nga xamante ni président déglu na leen tànqamlu leen ba defar lii. li ñu bëgg si yéen mooy ngeen utiliser espace bi nga xam ne seen espace la ngeen di ñëw jaratul kenn di paas di dem Diourbel jaratul kenn di paas di dem Dakar lépp loo ngeen soxla fii am na fi ngeen ñëw fii su fekkente ni demande d'emploi la fekkente ni demande de formation la de renforcement de capacité ak lu mante doon ngeen ñëw fii waxtaan ak euh, ñi nga xamante ne ñoom lañ fi dalal donc ñun en tant que dinañu nekk pour exécuter la politique de l'État de son excellence au bénéfice des population du département de Mbacké di sant ñëpp di gërëm ñëpp